xibaar yu wér te wóor ca tàng tàng ba abonnez-vous pour ngeen di man di jot suñuy vidéo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa su ne rek di leen indil ay xibaar la ca gën a fees nag ginnaaw bi nga xamee ne nag kii di Ngone Saliou ak itam ki nga xam ne moom moo di Maty Sarr Niang bi ñu leen attaqué foofee ca cybercriminalité ginnaaw bi nga xamee ne nag kii di Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp mi ngi doon wuyu ji ginnaaw loolu la nag ki nga xam ne moom moo di euh, Ngone Saliou jàkkaarloo nag li nga xam ne nag moom moo di journaliste yi wax ne dana daal di porter plainte ñooñee nga xam ne nag ñoo daal di def lu ni mel maanaam di leen traité ay nit ñoo xam ne ay jigéen ñoo xam ne nag dañuy jaay seen bopp loole nag bokk ci loo xam ne lu naqari la ki nga xam ne moom moo di ngeen Ngoné Saliou waral mu ne buy porter plainte sax dafay daal di porter plainte eh, ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ndax ñoom moom moo tax ñooñee daal di fay ñëw te ñooñee ñëpp nag dañoo bari mënu cee xàmmee kenn ba tax na moom daal ka mu fas yéene porter plainte du kenn ku dul ki nga xam ne nag moom moo di euh, ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany di seen njiit waraloon mu ñëw foofee nga xam ne nag moom moo di cybercriminalité waaye itam di wax ne moom nag lii nga xam ne xew na tey nekkul loo xam ne lu koy ragal loola ku daan dékku li nga xam ne nag moom moo di ay grenade waaye itam ak bal fital loolee nag lii nga xam ne moom moo xew tey nekkul loo xam ne lu koy décrasé waaye wax ji li ko ci gën a métti du leen lu dul li ñu leen traité li nga xam ne nag moom moo di ay jigéen yoo xam ne nag maanaam dañu war di jaay li nga xam ne nag moom moo di seen bopp loolee nag bokk na ci li nga xam ne ni moo naqare ki nga xam ne moom moo di Ngoné Saliou di ab journaliste ni ki tey jii nag di yëkkati kàddu yu ni mel ginnaaw bi nga xamee ne nag kii di Bougane doon na dem.